asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen ñi faral baax di topp seen canal bi nga xam ba tey ñoo ngi fi nii a am wala boog ñu bëggoon a yow ci kàddu yu gàtt rek cant gi nga xam si ni chaque bi ak ñu koy amal ñu bëggoon a xam ban jëg nga am ci bis bi nga xam si ni heure bu ñëwee gis nañ taxawaay bi nga xam si nga fi am leen nuyu kenn ku nekk sa sant dellu di sant yàlla man maa ngi tudd Ibrahima Dieng nekk président daayira Tidiane Bolzano ñu seq ko ak suñuy mbokk daayira muy Bolzano kii nekk sama càmmoñ kële di Mamadou Sarr di président daayira Seexul Xadim bi nekk fii ci Bolzano cant gi nag bu koy organiser ñun dunduñu tariixa fii diine la ñuy dund ñoo bokk ndey bokk baay amul murit amul fii ku xewle day mel ni ñi ñoo xewle fii xewle mel ni ñee ñoo xewle ñëpp ñu ànd nekk benn bokk mbay kan mooy murit fii kan yaakaar tas yàlla bu yaakaar Ibrahima kàddu yi am solo lool mel ni sa biiru kàddu dëgg nañ yoo xam ne ñun duñu tarixa lislaam la ñuy dund mu nekk tom boo xam ne si dafa am solo lool dafa dara def taxaw seetlu bu nekk ni bokkuñu tarixa yu mbokk waaye dañuy gis ni chaque année taxawaay bu am solo bi nga xam ne dañ ko taxaw ci bis bi ak pësté bi mel da ngaa cee bokk ku ñëwoon fi du xamee ni kii ca bokk kii la loolu ñu bëggoon a xam ci ban pas-pas ngay doxee ba mën a su morom mën laa kàttal nga mën a dundee noonu waa Bolzano waaw boo gisee loolu ñun fa ñu jógee ci Sénégal suñuy wéyjur dañ ñoo nampatal dañ ñoo nampatal ci diine ba ñun xàmmee wuñu kër Seexul Xadim ak kër Alaaji Maalik ñun pour ñun benn la rek mi ngi mel ni nga dem ay sa agence ba di dagg bi jëm Sénégal léeg-léeg nga jël ay Algérie wala nga jël ay Afrique yëpp Dakar la kon nag ñun bu nekkee fii li nu war mooy la suñu wéy jur yay dox sa Sénégal ñun ñu doxal ko fii bu Fatick naa soññee bi nga xam ne moom nga def ci ndaw ñi nga xam te ni ñu ngi ci liggéey bi ndax mel na ne liggéey bi ay mag rek ñoo ko yàgg a taxaw te mag ñi it dañ dem ba jëmm jamono xol beeg bëgg géeg lépp def def waaye kàttan gi ak yitte yi dañ dem day téye looy soññ yi njaboot bi nga xam ne si ñu ngi si biir liggéey bi waaw loolu moom ñu ngi siy sant bu baax a baax naa ne am solo yi mel na kon ñoo ngi tey ci cant bi yàlla dogal bi fukkeelu at ci ren kon day mel na kon yàggees na koo def kon xam naa laaj bu njëkk bi rek mooy ginnaaw ren mooy doon fukki at yi maanaam euh, ndaw ñi tamit ànd ak liggéey bi ànd mu rafet mbokki jullit di ak mbokki taal bi ci dem mi yëpp ànd ak yéen rafet ba at wootee kenn ku nekk bàyyi it yam nekk seen xarit kon daal su fekkee ne fukki yooyu xëy na mën nga cee am jàngat ci bi ngeen ko tàmbalee ren di fukki at yi jàngat boo ci am ci fukki at bi tey ci ren sëñ bi. jàngat bi ma ci am mooy ci itam yokk koo xam ne at mu jot day kawe suñu jot te itam li may wax toujours rek mooy man duma ji dañ maa ji xam nañ jiit ak ku ñu jiital lan moo leen wutale jiit day sañ a jël ak dogal sañ a digle sañ ku ñu jiital nag da ngay diisoo ñi la loolu lañ jiit ak ku ñu jiital xale yi nga xam ne itam ñoo fi ñëw ngi leen di baax a baax a baax ci seen Pastef ndax li ci ëpp lépp ñoom la waaw li ci ëpp ñëpp ñoom la mbooleem ñi nga xam ne mbokki jullit la nekk ci gox bi ñoom itam jàpp nañ ca tàmbali ba ba fii mu nekk ci liggéey bi ci financement bi ci lépp rek ci lépp rek boo ñëwee ci saal bi mënoo xàmmee kii lii la ak kële la waaye nag loolu li ko lal lépp mooy mhm. yàlla ju raxul dara man li ma nanguwul mooy gis nga ñaar ñuy wut yàlla mhm. bu ñu déggowul am na ca koy nax moroom ma mhm. wut yàlla dees ci réeroo ñaar bu ñu dee wut yàlla bu werante amee am na koy nax moroom ma fii nag naxante dafay amut yàlla képp képp ñu ñor liggéeyal sëriñ Tuubaa donga nu ñor mm-hmm. kenn bëggu cee doon dara itam mm-hmm. loolu moom lu ma ci seetlu la mm-hmm. te itam sëñ bii nga xam ne man def naa fi fanweeri at ak ñett ci dëkk bi waaye fi laa ko fekk moom xam na lu baax a baax a baax xam na bu baax a baax a baax li may wax <laughs> waaw <laughs> waaw jërëjëf euh, sëñ Modou Sarr ni nga waxee rek dafay dellu ci ay alxuraan bi suñu borom wax naan waxtasimoo bi hablillahi jamian wala tafarraqoo na ngeen and japp ci bu mu suñu borom rek nek ben ta baña takaliko tàqalikoo loolu la kon day melni lolou day deugal mhm. euh, wax joji yi nga xam suñu borom moko digalon digaloon ñepp mhm, mhm. kon xamna kon da ngay ginnaaw fi nga daaneele kon dañ jokkoon suñu wéyjur di señ Moussa Ka bu ko defé ginnaaw yalla def na moy nu bok ci magi talib yi nga xamne yag nañ ci gox bi suñu borom dogalit li ëpp ci liggéey bi mu tambalé seeni loxo ak mbokk yim mu fi nekk lool ba tey ndaw ñi ñew and ak ñom liggéey bi kon suñu wéyjur suñu Moussa ginnaaw bu la ziaré ba xamna dañ jox kaddu nga nuyo ak mbokk jullit yi ndax képp koo xam ba bëgg ngaa siyaan liggéey bi xamal ne mi ngi jàll en direct ci Touba Monde bi TV ak Baye Fall FM ak Xéewal TV képp koo xam maam bëgg nga si en direct mën nga faa jàpp kon mu mel ne kon li ñuy wax ne mi ngi jàll si koy bàyyi xel kon sëñ Moussa xam naa dañ lay bàyyi nga nuyu ak mbokk julli ñuy siyaan ci àdduna bi suñ paree ñëw incha allah ci laaj yi bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mm-hmm. mbokk yi noo ngi fii ci bu Touba Bolzano ci bésub seexul xaddim bi ñu koy sante di nuyu mboolem jullit yëpp di leen siyaare di ñaan sama kàddu fekk leen yéen ji ñëpp jàmm di ñaanal Seex Muhammadul Muntaxa suñu yaakaar teeg ëllëg yàlla yokk aw fanam te waral ay cëram ba li bëgg a liggéeyal ma mu liggéey ko bañ teñ ànd ko moom amiin te borom nangu bi yaay si ñaan yàlla na suñu borom nangu te boole ñu ko ñëpp bi jaay Seydina sallam barkeb Seexul Xaddim barke saali borom Tuubaa xam naa ginnaaw yàlla dogal na yéen ngeen bokk ci mag ñi nga xam ne yéen a sos liggéey bi yàlla dogal di fukki at ci cant gi ci ren donte mën na am xëy na liggéey bi ndax bi nga tàmbalee gi maa ëpp na fukki at wala xëy na cant gi rek mooy fukki at si Moussa bu dee xëy na loolu mag nañu cee leeral dara. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah alqail wa in taoddu niamatallahi la tahsuha mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo di leen siyaare ah ñu ngi fii di. sant sëriñ Tuubaa gi ñuy wax muy daayira Matlabul Fawzayni cant gi moom xañ na am na fukki at waaye daayira bi moom yàgg na lool wax dëgg yàlla ndax daayira bi dañ fay nekkoon ñu ñi bu njëkk li sëñ li sëñ bi di waxoon léegi ñu nekkoon fi ak suñuy mbokki jullit ak mbokki taalibe a ah, dëkk bi xawoon doy waar lool nit ñi amoon fa ay xew-xew yu ñu daan def ay 31 décembre ak ay association ak yu mbiri àddina yooyu am bi suñ benn mbokkum taalibe rahmatullahi alayhi dafa wàcc liggéey sëñ gay mm-hmm. amoon fi ngénte mm-hmm. mu tudde doom bi Cheikh Mahmoud Cheikh Mahmoudul Fadil bañ fa nekkee ca ngénte la lañ waxtaan ne ñun kat ndëgëm ñun dafay am liñ fi indaale te liñ fi indaale moo gën liñ fi wut si mm-hmm. ndax dañ fa indaale suñu diina ji indaale fi suñu lislaam ji indaale fi suñu taalibe gi te dañ fi wut si dong lu mooy alal alal alal alali àddina kon léegi nañ fexe ba suñu diine ji ñu fi indaale ak suñu islaam ji ak suñu taalibe gi nañ ko sàmm ba dara bañ cee yàqu ñu ne kon nañ sos ab daaira fekk sëñ bii keroog dafaa daanu ab jël ne man de xawma association daaira laa xam ñu sos ab daaira na léegi daaira bi nañ koy def saay daaira Seexul Xadiim du daaira Seex Moustapha du Seex Mamadou Fadil du Seex Mamadou Bassir daaira Seex Touba la sëñ Touba la mm-hmm. ñu def bi noonu ci loolu lañ doon ñu dem ba nga xam ne gis nañ li ñu sëñ Tuubaa defal ndax it bañ ko tàmbalee booba ci am néeg li naan dugg ñu dem ba xajatuñ ci am néeg ñu dem bay luye ay saal ñu gis kon li ñu sëñ Tuubaa defal mooy li ma la waxoon ci njëlbeen bi wa in tauddu ni'matallaahi laa tahsuuhaa kon li ñu yàlla defal ñun mooy boole gi ñu boole sëriñ Tuubaa ndeysaan te sëriñ Tuubaa mooy ki nga xam ne mooy jiri saa ci lëndëm nañ ci ak leer kon bu ñu ko santee moom Seexul Xadiim sant nañ yàlla ndax yàlla yonent bi mo nek du dul sant nit do sant suñu borom subhanahu wa taala lol moy moy moy ci gàttal li tax ñu sos daayira bi ngir dal bañ li nga xamne mën nañ fi indalé ñu ñak ko ngir li nga xamne mën nañ fi wut té liñ liñ fi wut aduna do nga la yem loolu moy ci gàttal li ma la mën ci ni ñu sos daayira bi ndeysaan jërëjëf suñu musa wax nga wax ji am solo ci ni nga xam non ngeen sos daayira bi fa ngeen tambalé ba suñu borom defal tawfiq tay ngeen diga def sal bo xamne nit ñi sax xajatuñu fi kon lol demé lu mana tambali bi man na man na sew lol waye mujj gi moom mën naa yaatu sax ba yow mako tambali won mu upp sa ay loxo lol melni buma déggé say kaddu natalé ko ak fiñu tok tay day mel lol ci baxa bax li nga waxat timit ci né manam biñ fi ñew liñ fi ëndalé mo gën si fuuf li nga xamné mom lañ fi fagu ci kon su fekkee dégg na lol timit mu melni kon bobu ay mag suñu borom dogal timit seen doom fi ak seen jarbat ak seen rak ay xale tamit comme ni nga ko waxee di fi feeñee di fi juddoo waa xale yooyu nga xam ne tey ñu ngi fi ana naka ngeen di fexe ba mën leen taabal ci biir liggéey bi ban man cee seey ba man cee doxee ni nga xam noonu ngeen ciy doxe si Moussa. waaw loolu day boo koy xool lu yomb la lu lu lu jafe la. Mhm. ndax it dañoo fexe ba xale yi. ñu nàmpal leen Serigne Touba. ndax bu njëkkoon xale yi dañ daan nit ci bu dimanche ci télévision yi di seetaan ay football ak ay yu mel noonu. ñu di leen nax ndànk ndànk di leen nàmpal Serigne Touba. suñ ñëwee ci jataay bi ñu di leen fexe di leen jàngal Serigne Touba. di waxtaan ak Serigne Touba. ñu dem ba nga xam ne xale yi nàmp neen Serigne Touba. te xam nga Serigne Touba day lu neex loo xam ko ku ko nàmp di nga ko loolu moo tax xale yi saay ñoom ñëpp tamit yàlla baax na saay ba ñu mujj lañ daan seetaan ci kër ya ñu bàyyi ko nga xam ne léegi daayira bi ñoom ñoo ñu koy ñoo ñu koy gën a yàkkamti sax far ñoom ñoo ñu koy gën ba moo tax léegi yàlla defal ñu tawféex ba ñun ñi nga xam ñooy mag ñi dañuy toog rek waaye xale ñoo defar lépp wax dëgg yàlla waaw loolu daal yàlla def yàlla yàlla ko ci baaxul seexul xaj wax dëgg yàlla ak it xam naa tamit ci ñaanu seex seex moom seex seex Saliou Mbacke rahmatullahi alayhi waaw jërëjëf loolu sax xam naa day firndee li Sëriñ Tuubaa di wax naan waltu basir biir yataama dawaa man ansihim bi abahum kulla hini waaw li mu wax ne maam yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga def ma may wéy juru mboolem ñi nga xam ne ay jirim lañu kon day mel ne ak li ma waxoon tamit ne man Seexul Xadim kat ah, làqukaay laa si képp koo xam ne maam bëgg ngaa raw kon day mel ne kon ndaw ñi nga xam ne suñu ma defal tawféex ñu mën a daw si ànd ak yéen liggéey Sëñ Tuubaa bi ci daayira Matlabul Fawzayni bi kon day mel ne waxi Sëñ Tuubaa joojeet mën nañ mën nañoo rafet njort ci ne maam dugg nañ ca ak li mu waxoon tamit ne add xalt nafsi wa jami an lii fii jafe waa sil fadli kon loolu tawféex ju rëy kon xam naa dañ ñaa kon sëñ Modou kon moom mooy jëwriñu ci liggéey bi comme comme comme comme niñ ko xamee ñu ñëpp rek xam naa kon sëñ Modou cant gi kon ban wàccaay ngeen ci am ndax gis nañu at mu nekk rek mu ñëw day gën a faw ma weesu woon loolu moom ñi siy ñëw ñëpp seetlu nañ ko tey dañ koy waxtaane mu ndeew si kër ya kon ndax mën nañoo xam maanaam wàccaay wi ngeen ci am ba tax daal at mu ñëw rek maam mel na day gàccaal ma weesu woon wala sax day tax nit ñi fàtte ma weesu woon sëñ Modou waaw wàccaay wi ñu am mhm. mooy pasteef bu raxul dara mhm. xam nga dafa am loo xam ne lu yomb la te nirul lu jafe waaye jafewul lépp Serigne Touba moo ko yoral boppam ci loxoom waaye nag am na mbañ kooc la sëñ Touba bañ saay boo defee ne dara nga ci lu yàqu yaa ko yàq te it dëkk bi képp ku fiy ñëw nemmeeku nga ne ñi fi nekk moom saytu liggéey bi kenn bëggu cee doon dara yow mii feeñ na ci yow ci bi ngay liggéey ci rek ku la waxal mbooloo moo xam ne dañuy def bis bu toll nii di ko def fukki at daayira bi romb fanweeri at te boo bëggee ko toog waxal la mu tëla tic ndeysaan kon adduna taxul wallaahi yàlla la ñuy wut mhm. secret bi rek mooy ñëpp la sëñ Touba ñor li ma leen di wax daayira toujours sëñ Touba kooc lay bañ mhm. soo ko koocul loo tàmbali mu eggaleel boppam soo ko koocee nag mu seetaan la bu ko defee dara du sotti loolu képp ay secret bi du leneen lépp lu waay di def tudde ko sëriñ Touba te amul kooc sëñ Touba koy sottalal bopp hmm. loolu moom ñëpp xam nañ ko loolu dong mooy secret bi du leneen alhamdulilah <laughs> jërëjëf sant nañ baax nag ci ci leeral yi ndax soo gisee leeral am solo yi day tax ñi nga xam ne ñooy seetaan te nekk ci yeneen gox buñ déggee kàddu yi xam ne ay mag ay kilifa ne ci réew mi mm-hmm. di ko yëkkati te bëgg a dox ñoom ñooñee danañ jëlee bind boo xam ne danañ ci am ab tàmbali boo xam ne buñ ca soo buñ ca tàmbalee rek taw bi si ba mën nañ caa fekk ñu mën am maanaam lu mel ni ngeen am mm-hmm. wala buñ ko amul tamit seenum xel dana daal ban man nee roy loolu day tax kon leeral gii ak mag ñu mel ni yéen di leeral maam cosaan li ngeen tàmbalee liggéey bi da ci am solo ba loolu ba sun sun moromi tu tànke ñu ngi si yeneen i gox man ci la ab bind sëñ sëñ waaw sëñ Modou waaw xam naa ne na kon damay bàyyi kon kàddu gi ngeen soñ ngeen soññ ndaw ñi waaye rawat ndaw ñi nga xam ne ñi ngi ci yeneen i barab tey te di ñu déglu lan ngeen leen di soññ mhm. bañ mën a góorgóorlu baax a baax ci liggéeyu seelu xaddim bii nga xam ne suñ ko waxee mooy liggéeyu lislaam mhm. ndax suñu dafa waxoon ne diinun siwa islaami laa yuhmadu mhm. indal ilaahi wa bihi nu jaddidu mhm. man seelu xaddim kat dafa njëkk wax ne sax lil Mustafa nawet maa yu jaddidu daan ne maanaam damaa ñëw ngir yeesal diine ji nga xam ne moom yonent bi sallam andi woon bee mu wax ne képp ko xam ne maam doxoo ci yéen islaam ne doo am ngërëmu suñ borom waaw beneen bi sax dafa njëkk wax na sax ci ci xis ne araamun ala man udaaw aba duxulu jinaanin lan turi dafa wax ne maam dafa dafa dafa dafa araam ci ci ci mbindeef mu suñu borom bind muy dugg àjjana te fekk mu noonu mu noonu yu saa salaam loolu waaw kay kon euh, fekkee xëy na am na soñño yoo xam ne da ko mën a indiwaat waaw ci ndaw ñi nga xam ne ñuy saan mboolem ci Europe bi yëpp nag wala sax ba Sénégal te bëgg def lu mel nii ngeen def ba am ci maam tawféex ji ngeen ci am sañ Modou waaw soñño bi may jëkk indi rek mooy Euh, li may wax toujours damay wax ne képp koo xam ne gis nga bayitu sëñ bind di wax ne defal nit ak defar nit sama man-man ci diw la jeexe ku ko gis fenn nga baaxe ma ko dimbali ma ci ginnaaw kenn gisu ko fenn nag lu tax nuy wutal sunu bopp ci sëriñ bi loolu mat naa xàmmee sëñ Touba amul dara dara dara lu mu mënoon démb wala lu mu amul démb tële ko tey wala mu ñàkk ko amul mhm. li mat xam rek mooy li may soñu ci ndaw ñi mooy mhm. wërsëg mhm. yàllaa ko war lulub jaam te mooy jiitu juddu loolu dafa mat a xàmmee ndax boo gisee may wax loolu ndaw ñi dañoo nekk ci jamono joo xam ne ñi ëpp ci nun dañoo joyal seeni pexe ak seeni bëgg-bëgg ci wërsëg te wërsëg dañ la ko warlu bokkul ak li la war li la war mooy gëm yàlla te jaamu ko te doyloo ko wërsëg yàlla mi la sant nga jaamu ko te gëm ko moo la ko war loolu laay dénk ndaw yi ñu xam ne nekk ci li la war dana jàpp ndi liñ la warlu ndax ki la ko warlu mën na ko te dana ko def liggéeyal Sëñ Tuubaa amul démb amul tay amul suba fu ci waay yem yaa fa yemale sa bopp waaye li may dékk dénk ndaw ñi rek mooy képp koo xam ne sóobu nga ci liggéeyal Serigne Touba nga la waaye na nga fexe ba bu ko kooj gis nga ni suñ borom bokk bañ a bokkaale ni la Serigne Touba bañ a ko kooj nanguwu ko lépp lu waay di def nay Serigne Touba kese du raxul dara loolu laay dénk ndaw ñi la ca des nag moo ko yoral boppam te xam na na mu koy defee ndax juboo na ak borom. alhamdulilah jërëjëf wax nga wax ji am solo. mu mel ne xam naa baatu kooj bi ngay faral di wax baam lu bëri say kàddu xëy na comme ndaw ñu bëri duñ xam luy kooj boo leen nga moom leeral tim dina am solo sëñ Modou. xam nga kooj mooy. sëñ tubaa ak. Mhm. sëñ tubaa ak. Mhm. loolu mooy kooj. Mhm. xam nga léeg-léeg nga gis uh, mbooloo moo xam ne xam nga lu leen di réerale. ku mel ni man day dem ba ca ba mu yàgg mu defee ne moo tax lépp yi dox te du ca dara. la koy indi mooy. yaakaar ne yow boo bàyyee dara dootul sotti wala yaa koy doxal loolu mooy koo sëñ tubaa sëñ tubaa lépp moo ko yoral boppam liggéeyam bii ba mu koy liggéey amul kenn ku mu àndal la sëñ Abdou Lahad waxoon mm-hmm. ba muy ñaan ku nekk ci ginnaawam naan amiin sax amu ko <laughs> kon nag boo toogee ba xiiwal yi baawaan mm-hmm. li may wax mooy sëñ bi kenn ku nekkoon na ko bi sa bopp mm-hmm. sunu baay yaanu gën waaye noo leen ëpp barke lu tax kon ngor war na nun ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci jamono ak li jamono yëngu war nañoo gore ba xam nga wolof day wax ne fay naar bi xorom si naar bi mënee su koo fay xorom si waaye damay wax ne di delloo ci naar bi ci xorom si mënee su koo waaye di delloo ci naar bi ci xorom si ngor la ku ne war na koo man loolu laay dénk ndaw jërëjëf xam naa koñ dëkkaa suñu waju sëñ Moussa Ka bu ko defee xam naa waxtu mi ngi ñuy waaj a mel ne am na yeneen plateau yu suñu kanam xam naa liñ bëgg a waxtaan rek xëy na ab soññee tamit ci ndaw ñi ba tey ci maanaam koo xam ne bëgg ngaa jariñu ci liggéey suñu tubaab ba tànk ndaw loo jàpp ne maam bu ja awee teg ca tànkam maam mën na caa jariñu comme ni nga yàlla defee tawfiq yéen ñi ni suñu ay wajur ngeen jariñoo ci noonu sëñ Moussa bismillahi rahmani rahim man day li nga xam ne moom laay dénk xam nga damay wax fi daara bi naan kenn ku ne am na foo mane man fa ma mane man mooy ci jàngum njàng am njàng ak njàngale kon li may dénk ndaw ni ndaw yi donte ñëw nañ fii tamit ci daara yi tey jàng ñi nga xam ne bi dañ fee am ay tuut tàgg ñu fexe leen jàngal alxuraan leen ko nàmpatal ndax it nit ki li nga bëgg sa doom mel ko da koy dund mu di ko gis kon dañuy jàngal ndaw ñi ba pare di dund ñun saay ak suñu doom du ko gis ñu du ko def bu ko defee ñu nàmpal leen ñu mën koo def waaye mënoo baaxal ba def baaxal baax loo sa doom te yow baaxoo. Mm-hmm. kon nañuy fexe di jàngal ndaw ñi. alxuraan gi nga xam ne moom lu moom daa barkeel. Mm-hmm. ndax it ñun kat ñu nekkee fii ci réew mi. Mm-hmm. biñ fi ñëw ay xale lañ ni tuuti. kon buñ demee ba nekk magi jëmm. te man fee taxawal lu mel nii. la ko waral mooy dañ ñoo jaaraloon fañ ñu war fañ ñu waroon a jaaral. kon ñun tam nañ fexe ba la la suñuy bàyyi defoon ci ñun ba tax ñu mën a taxawal lii nañ ko jéem a delloon li koy wax naar bi xorom si fexe fexe ko def ci suñuy doom yi xale yaa ngi fi juddoo fi nañ leen fexee jàngal alxuraan jàngal leen diine yar leen ci diine su ko defee bu ëllëgee suñ màggee li ñuy li ñu yenn woon ñoom tey ñu mën ko yenn waaye suñ leen bàyyeeg loxol tubaab yi ba liggéey daañ daañ ci am lu lu lu luñ naqare te kenn ku nekk war ngaa moytu la yeg sa doom la yey borom musal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Moussa ñu ngi santaat bu baax di gërëm xam naa sëñ Modou Sarr sa kàddu yu mujj rek ak mbokk julli ñu ñu saan incha allah di leen sant yéen it ci taxawaay bi ak yëg bi ak parlu bi bi di leen sant di ñaan sama borom barkeel liggéey bi te defal leen tawfeex te defal ndimbal di sant itam bi mbooleem jullit yi fi nekk di leen xamal ne seeni liggéey it egsi na sant nañ ñëpp bu baax a baax a baax di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu yor ndimmal boole nu defal ndimmal ak taw feex te yàlla bu nu gis suñu bopp mukk ci li ñuy def wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu amin amin kon mbokk jullit di mbokki taali bi loolu mu doon jotaay bi ñu toogoon ak suñu kilifa yi nga xam ne ñoom la suñu borom dogal tey ñu ngànk liggéey suñu tubaab fii ci goxu tubaab Bolzano bi ànd ak mbokki taali bi nekk yow ak mbokk jullit di doxal liggéeyu daara ji ak liggéeyu daayira bi waaye cant yi at mu nekk dañ koy amal muy cant goon wax dëgg yàlla bu àdduna bépp bàyyi xel la waaye rawatina ñi nga xam nekk fii ci Touba Italie kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la ñaan bu baax a baax Cheikh Ahmadou Mountakha suñu ci mboolem jullit ñëpp nag ab ab jullit moo nag yàlla dafa jàmm ak tawféex bi jaay Seydina Muhammad sallam barke Cheikhoul Khadim barke Sidi Bourana wasalaamaaleykum wa barakaatuhu jërë ngeen